bismil ilaahi ci yàlla ay maqaama yàllaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla ay maqaama yàllaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla ay maqama ya law o qalbuka wala sadati mai bagawai tayji ma way fi sangub go ñep ya law ko ka di sheikh fallu ko ka mag mo ray ya law ko ka kookaa mag mo rey mir mo gën ñu ñëk ñëpp gën ñi ñëpp o ku melni ni moom fi am ku dootu bi am la mbokk ñu top seen télévision bo xam ci Serigne Mbacke ak Serigne ak ñi xam tan ñoy japp ci liggéey ak Serigne ak Serigne ñu bëgg xam liggéey bi nga ñu koy amal ñu jëm ci Serigne luñ ci mën a xam luñ mën yóbbaale rek ko defee ñu gën ko mën a yaatal bu yaatu ci askan bu ko defee ñi nga xam ne yitteel na leen ñëpp rek ñu indi ci seen taxawaay Sëñ bu fekkente ni moom mën nañoo xam daayira bi kañ la sosu ak fan ak fan la nekk ci Sénégal jamono bi ginnaaw bu wa rahmatulahi wa barakatu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi santaat yàlla ñu ñu ko teelewaat ren ñu bokk fi teew ah bi nag liñ ciy wax mooy ni mu sosoo ak kañ lañ ko sos muy daayira turandoo sëñ Fall yi ñu ngi ko sos 1994 Cheikh Moustapha Fallilu nga xam ne moo njëkk a wutu sëriñ Fallilu moo ko sos taxawal ko di ñu ci nekkam ñu moom mu def ci taxawaay bu rafet sos fi daayira sët yi li ëpp ci liñ fi sos lépp ci taxawal taxawa taxawaayam ci lañ ko sos bi mu fi jógee Cheikh Mamadou Lamine Bara wuutu ko moom it taxaw ci taxawaay bu rafet yal na boroom borom yokk seen i leer ci daraja yu Serigne Fallou ah daayira bi nag bi ko sëñ Modou Sassé jiite Cheikh Mouhamadou lu moom Cheikh Mourtala moom Cheikhul Khadim mooy président d'honneur bi Serigne Fallou Ndiaye May Gueye mooy président national bi région yi nag bu ci ne am nañ fa président boo xam ne moo jiite Fallou ya fa ne turandoo sëñ Fallou ya fa ne ba ci département yi ak dëkk yu mag yëpp. Touba gii nag moom mm, section yi tasaaroo na ci biir dëkk bi daanaka lu mat ñeent fukki section ñu ngi boo xam ne fu ci ne sos nañ fi section boo xam ne dañu fay tàndum fallu mu nekk ca gox boobee mu boole falu yi fa ne yëpp ñu saf saf section ñu ànd ak ñoom ñu jox leen ay carte ñu liggéey seen fallu ci daayira bi daayira bi nag ni ko sosee mooy dañoo def ay carte membre carte membre yi photo jumaa ji ak photo sëñ fallu moo ci ne 1000 francs lañ koy wecc ko 1000 francs yi dañ ko ciy bind defaat beneen carnet reçu bu addiyee boo xam ne bii 3000 la mooy photo sëñ Fallou ne dañ ciy def turu sëñ Fallou bi sëñ Fallou yi dañ ciy def sëriñ Fallou ji dañ ciy dañ ko ciy moolaale moom it mille la addiyee at mu jot Kazu bu jot ku ñu tuddee sëñ Fallou ku ne bëgg nañ Kazu Rajab bu ne nga indi sa cotisation bu fekkee mosagoo bokk ci daayira bi 4000 ngay joxe mooy dagg sa reçu membre ñaar téeméer addiya juróom-benn téeméer muy 4000 carte membre bi benn yoon nga koy am boo ko amee dootoo ko dagaat at jot juróom-benn téeméer lay doon li ci gën a am maanaam ëppal lu ci solo it mooy fu turandoo ne te ñu tuddale Serigne Fallou bu bisib màggal gi ñëwee maanaam balaa màggal gee ñëw nga jàngal sa turandoo kaamil alxuraan bu sell boo ko mënut a jàngin nga seet ku ko mën a jàng ñu sell ñu jàngal ko jàngin ñu sell nga addiyal ko Serigne Fallou sa turandoo kooku moom sàpp nañ ko ko wu doo ko juddoo bu am téeméer at lañ cee ma def boo ko mun rek def lu ko moom li moo ci ëpp li ci ëpp solo jàng xasida salaatu ala nabi loo man ak bernde nekk ci bis bi maanaam loo man ci bernde ci bisu màggal gi rek nañ ko daa defee sëriñ Fallu moom amul tànk ginnaaw kanam daal bernde yi lu mu gën bari gën ci ñu ngi woo ñëpp ci màggalu Kazu Rajab bu ñëw rek dañoo fas yéene dàq ga weesu waaw ñu ngi ñaanal nag sëñ Abo mi nga xam ne moo toogee jataayu Fallu te taxawaay taxawaay rafet ci daayira bi suñu borom yàggal ko fi guddal aw fanam ak njabootu sëñ Fallou gépp ak bépp turandoo boo xam ne yaa ngi ci kër yu mag yi te ñu tuddee la sëñ Fallou kenn ku nekk gis nañ ci sa taxawaay ñii ñu bokkal neex na muy Serigne Fallou Gaye euh, secrétaire bi nga xam ne moo yore mbirum carnet yeeg xaalis sëñ fallu Jaxate xam naa ne xam nga ko ndax moom seen yaay la moo moo yore mbirum communication bi ak wàll ci xaalis bi ni ñuy rek rek yooyu. ak sëñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne moom it moo yor wàllu matériel bi ak yooyu ak kenn ku ci ne daal am nga loo ci yor waaye dañooy bëgg a soññ daal nit ñi ci taxawaay bi ndax daayira la boo xam ne bi dañ na Sénégal kap ba génn bitim réew kon nag ñi nga ñaan fu mu fallu ne ak foo man a ne bu dee ci réew mi euh, fa nga ne am na fa ku fa taxawal falu yi représenté leen fa na nga dem ci kooku bindu moo bindoo bu fekkee daa nga bindut nga dem joxe sa addiya te fàttali la njàng mi bu baax section Touba ñu ngi leen di soññ nag ñoom jàmbaar lañu war waaye dañ leen di gën a soññaat ndax jàmbaar lu mu kii ci da koy gën a soññaat ci sëñ Fall ndax xam nañ kenn du ci tay waaye ñu ngi soññ bépp turandoo daal ci dagg rusi yi jàngum alxuraan yi xasida yi salaatu nabi ak bernde yi loolu mooy taxawaayu daayira ah loolu na moom ñu ngi ñu ngi ko doon def waaye fi ne mënuñ koo wax ndax lim bi ba mu bari ñu ngi ci nag Il ba fu fu ne te ñu nombre bi ak sexe euh, région ba bon bu département bu dee région bu dee ci dëkk Touba yi ak On yu mag yëpp bëgg nañoo wax totaale lépp ñu ci ci recensement bi waaye dafa dañ cee dañ koo complété dégul daal. bu ko tamit daayira bi ci biir kër Fall xam la doon wala beneen yan yan xeetu un la ñu ci kër yi. un seen taxawaay fépp la rek moo ngi aju ci bi soxla rek bu suñu daayira bi neen ci sëñ bi lañuy jëlee ndigal lu mu nu digal rek ña nga ca loolu. seen réalisation ci mën a bu ñu taxawee bi de moom na ci mbaaram mbaaram mag mi newoon ci ti kër sëñ Fall nga xam siiw na ci àdduna ndax foo ma saa dem ci àdduna ñun la mbaaram sëñ Fall mbaar moomu sëñ Modou moo nu waxoon ne yéen a koy liggéey waaye nag damay tàmbali ngeen ne ci liggéey ko muy 14 millions cent mille keroog ba bañ ko versé ba mu mat 14 millions 400 mille dañu bind leen seen. tur sëñ fal yoo xam ne ñoo ko lëggeel seen tur sëñ fal ku saa ñëw fii ci bunt bi da nga gis table bi ñu bind ci 14 millions 400 mille moom mooy mooy ñu ko lëggeel ak yeneen yu bari nag yoo xam ne yi ci biir kër gi la ak feneen boo xam ne fii lu ñu ci bi sant daal ña nga ca lool waaw. kër gi woote na ko rek ci xeetu liggéey la wala màggal wala lu waaw xam nga euh, complété ndax daayira lañ yi tur woowu sëñ sëñ Modou ko tuddee woon def nañ ay carte membre def carte reçu addiya waaw bu laajaatee yeneen sas yoo xam ne ndax bokk na ci barabu sëñ fal bi sëñ bi dañu koo jox rondooy sëñ Fall ñu di ko liggéey léegi léegi tey mu mu jate am nañ ku baax koo xam ne kii jàpp na ci liggéey bi mën nañ ne moo yore liggéey bi ñu koy ñaanal liggéey bi ak ak ñu ànd ko sëñ Fall ak Fall bu ci mas def Euh, addiyam rek ñu ngi ñaan suñu borom yokk ko ndax bañ ko njëkkee kii dañoo sasoon sasu cinquante mille waaye léegi moom lu waaye am rek loo joxe ñu defal ko ndax ki ko moom man na ko lépp. mën na ko liggéey bi suñ turandoo suñu Fallou ñoo ko liggéey wala dañ ñoom lañ ko jox ñu di ko liggéey waaye nag dafa am koo xam kii dañuy wax euh, Ablaye la moo jël liggéey bi lépp engagé wu. te laajut kenn dërëm waaw moo ko liggéey ci ci ci ñaxam te ngir sëñ Fall luy jàpp nañ ci lu ñu am ñu def def ko ci ndax liggéey bi dafa rëy parce que ñi fiy liggéey ñëpp ñoo gàddu seen i añ li ci war lépp ñoo koy def ab laay nag moom dañ koy ñaanal rek bàyyi ko sëñ Fall moom mi nga xam ni am na pay te ko lu ko waaye liggéeyal dana dana la fay moom ñi ngi ñaan moom mu fayal na ko ba ba lépp lu mu ci yéene woon suñu borom defal ko ci moom lu koy ñor. ko defee ñëpp Kazu Rajab bu ne dañ koy seetlu ñu fiy waaw loolu mooy mbaalum secrétaire yi nga xam ne section section bu mag bi section Touba léegi mbaal mi mooy mooy mooy mbaa section bu mag bi nga xam ne ñoo fi ne bokkut ak section yi ne ci koñ yi ndax fu mel ni Ndindeeg aneer yi ak di dëkk fu ne dañ faa samp secrétaire waaye ñi ñëw bu Kazu Rajab teree dañuy mbaar fii benn baas def fi taabal takk fii rajo ñoom secrétaire yi saa ñu xëy rek ñu fi xëy si ba màggal gi yàlla di laaj addi turandoo yi dikk rek ñu bindal la sa addi nga verse ah waaw waaw loolu moom moom ñu koy bind nag waaye wàccee guñ mën a xamaguñ nombre bi daal ndax ñu ngi koy bind ci carnet mais total guñ ko daal pour wàcce ko waaye bari na daal xam naa kon ñu tëjee soññe bi nga def ci Sëñ Fallu yi wala yaay Sëñ Fallu yi ci ngir indi Sëñ Fallu ñu bind ci waaw ñooñ da xanaa soññee moom ñu ngi ci woon xanaa nag nit ki moom waaw góor day dooli taxawaay soññee bi mooy waajur yi jàpp nañ ci ndax da gis ku boot xale bu boo xam ni sax amagut ñetti weer indi ko kon xam na ne am am na taxawaay ci doom ñooy dagal seen bopp ñi nga xam ne mag lañ ñii dañuy jàpp seen loxo doom andi kon ñooñu am nañ ci taxawaay te it da ngay toog ba ak ñu ñu la kara ne la bindal ma sama doom wàcce na ko am na carnet bu ñu koy bind kaamil yi ku wàccee ñu lay jox numéro boo wàccee woote ñu bind kaamil yooyu ak sa xasida yi luñ ci luñ ci def rek buñ ñu ko waxee ñu bind buñ na peet gaaral ko suñu xam ne lii lii lii ñëw lépp sax binduñu waaye li am na luñ ciy bind loo xam ne nombre bu baree bari la ci wàccee kaamil yi waaw kooku moom ñu ngi ñu waajur te leen ñaanal seen Fall yi ñu boot ak yi nga xam ne ay tuutaan la ñu ngi dem ci daal ñi mësëruguñ ñu ngi ñaan ñëpp suñu borom taxawu leen bañ doon ay mag yi lislaam ñu sax ci lislaam suñu borom may leen kàttan xiiwal bari ñëpp yaakaar waaw jërëjëf di di di daaneel ci yi rek ñii nga gis ñu Serigne Fallou Gueye comme ni ma la ko waxoon moo yore wàllu secrétaire yaa yi moo waa Serigne Fallou Gueye sëñ Galas Jaxate communication ak ci mbirum xaaj bi ñoo ko yor ku ñu Fallou Ndiaye mooy moo yore wàllu matériel bi waaye ni ma la waxoon sëñ Fallou Ndiaye Mbaye Guèye mooy président nationale sëñ Fallou sëñ Mourtala mooy président d'honneur bi ak Fallou yi nga xam ne nekk nañ ci kër kër yu mag yi yëpp bu ñu wootee kenn du ñëw saa yu siyaare ñoom ñëpp dañuy ñëw waaw di leen sant di leen ñaanu suñu borom guddal seen fan yaatal seen wërsëg. parce que ci département bi ni nga xay dañ daan verser avant ñooy màggal ñooñu lay soññi koo xay verser ko man ngaa ñëw nga def sa versement wala ñoo màggal dem soxna nañ ñëpp am na ñu ñëw nag ñu bëree bëri ñëw na waaye lu des bëri na ñu ngi leen di soññi nag màggal gi nag dañ koy màggal incha allahu taala taxawaay buñ ci mas taxaw nag bii moom lan moom moom lañ ci gën a fonk ndax ni mu demee danoo bëgg màggal gi xum daje fi berde yi bari ñu sant sëñ Fallu yendoo jàng alxuraan ak xasaayit Ah, bernde yi bari nit ñi bari maa ngi leen di ñaanal ah, jàmm barke Cheikh Mouhamed Fadal baax na jërëjëf. xanaa ah, li ñu ci dolli mooy li Alla Ndiaye waroon na wax mooy siyaare bi nga xëy dañ koy def at mu nekk di ko amale seen dindi muy siyaare bi ñu ngi koy fàttali turandoo yëpp rek buñ ci yeggee dinañ leen woo ñoom ñëpp rek ñu daje ca ndindi ngir jébbal liggéey bi Serigne Abou Mbacke moom ñu di sant ñëpp di gërëm ñëpp. loolu ndax mën mi maanaam buñ ma buñ ma saa gàmmoo lañ koy jàpp waaye léegi xam nga ni jamono ji moo tax bu ko jàppee daal dinañ ko dinañ leen ko wax ñun ñëpp rek. waaw maa ngi indi woon sama sëñ Fallou mu bindu si dagg si rosi. nag nag ngeen liggéey waajalee magal gi xam nga. waaw ñu ngi di ci ànd ak kontaan bu dee doom pour ñëw tuddee dagg fii aussi contentement ak mbégte bu baax dañuy am ndax ku sañoon ku ne am am si fàllu ñu nga a ñëw di ko daggal dañuy sant yàlla bu baax. ma ne liggéey fii mi ngi jaar yoon bu baax. waaw mi ngi jaar yoon bu baax te ñu ngi koy teg ci sàpp tamit. maa ngi woo sa kër nga soññi nga ñëw dagg si carte ndax loolu mooy li gën te mooy li gën a doxal affaire yi. waaw su ma dem Ngalom Dagal waaw Sëñ Fallu. naa ngi ko gisee liggéey bi. waaw ni nga gisee mu defal na trop rafet na trop bu baax a baax ndax tey moom waaw bu baax la daal waaw suñu Fall moom ku a xam na moom dafa nekk sama lépp moom waaw ndaxte kii bi ma koy tuddee suñu Fall booba bi ma bi ma xamee ne am na ci yaayam ñaari weer laa jëm si bopp suñu Fall bu ko nag kii nag yaayam am na si xam naa ne yaayam am na. maa dina ci moom am na ñaari weer waaye dama ko bëgg sëñ Fall ba yàlla def rek mu bi mu juddoo maa ngi weer kese lay bëgg ma tudd ko sëñ Fall waaw nga xamante ni waaw sëñ Fall moom day sama lépp moom waaw dama am liggéey boo xamante ni yaakaar naa ni lii wax naa ñëpp maam ñëpp ay kii suñu Fall lañ waaye man moom damaa jàpp ne man moom sama lépp suñu Fall la woon ndaxte bu ma amee jaaxal rek su ma jàkkaarloo moo rek dama koy fayal ba ci weer yi it amoon naa jaaxle waaye gis naa ni dama si ay taw feex daal waaw. soññee nga def ci ñi nga xam ne ñëwagul waaw ñi ñi xamante ne nañ gën di ñëw ndax it maam loolu xéewal la kon suñu Fall moom turandoo yi ñëpp war a ñëw.

ku noonu sëñ fallu booy tee nar yàllaw alhamdulilahi yow yaaram bi kenn bañula la bur yàlla seede na lii seex saaliw kenn bañu la alhamdulilahi bi kenn bañu la bur yàlla seede na lii seex saaliw kenn bañu la na ngeen ma déglu te sellal xol yi kuy wuta xam lu ne ci man na ko xam yaaram bi kenn bañu la subhaana rabbika